yéen ñaar yéen a àndoon. waaw ñu àndoon waaw. fan ngeen doon dem. jarax. jarax lan ngeen doon wuti. ak moto yi. waaw moto yi dafa am bërëb bu mu ko doon jëlee. waaw. ban bërëb la loolu. jarax si biir la ñu am ñuy jaay condiment foofu. waaw. loolu yëpp bi affaire bi am ñu ngi fàttali avant ngeen doon lan moo xew si diggante bi. loolu ñu am yëpp danga ko fàtte mais nan ngeen fi déparé nan ngeen fi déparé pour dem ñu dugal lañ déparé loolu nag ñooñu ko dem jàmm bi dugal lañ déparé dem jàmm bi jiwóoñu foofu ba moteur yi si lañu ñëwaatee boobu ñoo jullee ba jullee tisbaar waaw su ngeen déparé jàmm bi ci bay foofu ñu leen di bàyyi di ko dem jàmm foofu jàmm jàmm dem Yaraax ba ñu ngeen di egg Yaraax kooku à peu près yaa xam ngeen di di foofu wala si yoon bi nii dayoo leen ak policiers yi wala gendarmerie. gisul leen policier. gisul leen kenn. ba muy réew bi ba di choc bi ni muy amee daal foofu lañ kenn. li nga xam ne daanaka fekk na daal sa tool. maa fekk na ñu. mais dem nga hôpital la. waaw même li nga li nga defal à part pansement bi. ah naa fekk dem nga. maa ngi ñëw naa fekk na daa ngi ñu bàyyi dem boo ko ñëwee nga ñëwaat. da nga daanu wala dafa am lu ñu dóor la. am na ñu war a bi ngeen dem yàgg lan ngeen jot waxtaan lan ngeen jot a discuter yéen ñaar da ngeen yéeg ci bi loolu lañ bëgg nga ñëwaat nii si ngeen di yéegee ni ngeen di déparé ni ngeen di demee ba yow sa xel fu mu yor ne yaa ngi koy fàttaliku. waxtaan la si àll moto daal a mbaal la loolu ko di ko tey boo ñu doon ñëwlaatal ci ki nga xam ne moo génn àdduna di Saliou Euh, lan nga nu mën a wax ci moom. kooku mooy sama nit la sama lépp. ci ak jigéen waaw man su koñ bi nga dëkk. dina passé. nga dëkk. est-ce que c'est la première fois ngeen ànd ci moto wala yaa ngi am. yàlla nekk ñu am. mosu ñu am benn problème ak léegi yow kon passage nga dëkk la moo la indi fii. ah man daa ngay nga ñëwoon sas ko. d' accord. yaa ngi nekk ak say waajur. waaw. Mm-hmm. yéen a bokk bërëb bi ngeen liggéey fële crédit foncier quoi. yéen a bokk yéen a même place. yéen a bokk lépp. waaw yàgg ngeen liggéey foofu. léegi yéen lan ngeen di xaar si état bi lan ngeen di xaar si nguur bi yaakaar naa tey ndax mën nga ñëw nga xam rek kan moo doon seen Saliou. waaw Baye Sall ñu koy wax seen Saliou Touré Saliou Touré ñu koy wax Baye Sall kon moom ñëpp Baye Sall lañ koy wax non booy bu cool la woon wax dëgg yàlla booy bu baax sax booy boo xam te ne amuloon problème kenn si koñ man de wax dëgg yàlla depuis mu nekk booy ba léegi wax dëgg yàlla mosuñu ma woo téléphone wala ñun ma Baye Sall mi ngi xeex wala kaay àtt ko wala Baye Sall police téye na ko fii wala Baye Sall am na problème ak moom mën naa ko seede man ak magam ñooy ànd quoi daa sure moom mi ngi nga woon naka naka la nekk ci li mu daan la ko xamee wax dëgg yàlla bu xëyee fii huit heures daanaka koñ moom su dugaatee minuit une heure wala bu teelee ba teel vingt deux heures te boobu day fekk yaayam am fu dem mu dem toog si place yaayam jàppale yaayam moom ku ko xam-xam ni yaayam la bëgg te moom lay àndal foo ko gis waaw te koñ bi moom di xale yi bëgg nañ ko trop dimanche moom fii bu fi nekkee nekk dafa yenn ko mhm. bu ne tulli si bopp koñ bi gis boo yëpp daw song bu jàdd ak ñoom si bitig bi jëndal la ñëpp ku nekk li nga bëgg quoi koñ bi moom wax dëgg yàlla booy moom loolu lañ ko xamee booy bu kuur booy bu ci li nga xam ne lu def lu a marqué ci moom ana lan nga wax dëgg yàlla yegg que moom damay jaay yére fii mais boo xam ne moom vraiment koñ bi parents ñëpp la jox cër man ba jour bi bi affaire bi am sax romb na ma taxaw ni si balcon kër mu naa ma yow sama tiset ma la bàyyi la ma ne ngi fi maanaam boo ko jaayee di nga xam affaire noonu yàlla daal affaire daal moom bett nañ daal bett nañ loolu a wax bett nañ trop. xam nga xam ne ni par exemple yàlla teg na ko da ko teg mhm. ci maanaam naka nga boobu la information waaw parce que laay fekk na ma fii ma toog ay cinq heures non astafurlah ay six heures ñëw woo ma ñëw mun ma numéro magam bi quoi ndaw laa soxla ma jox ko numéro mu ñu woo ba sonn jotuñu ko mu ma numéro bii ma jox ko bii ñu ngi woo ko muy sonné béréb quoi. ci laa xool kanam man ko booy lu xew. moo bàyyi dafa am soog bu mu def fële yaraax xam nga après ci la ma expliqué ne affaire bi yëpp demee quoi chaîne bi ni demee yëpp man ko lay garaaw kon nañ dem ci laa bàyyi benn booy si place bi ànd ak moom yéeg si moto bi dem wóori magam bi quoi ndaw ba gis ko léegi ànd ngeen dem CTO man ma ñëw fi jël taxi ma ne sama yenn boobu fekk ñu gars yi agsi foofu ak ci bi choqué nag affaire bu métti di ko xam ne gis nga ko si suba gi ngoon gi ñu woo la ñu la dee na da lay métti quoi soo xam ne sa booy la quoi chaque bu ñëwee moto bu ñëwee sama buntu bi li jël li muy jël gën a talat moto ñàkk nañ daal ñu ngi ci dëkk ñu soo moo boo xamante ni soo ko yaa ngi dem ndax am nañu vingt quatre millions foofu comme dem daal gënal ko fii mu jógee moom dëgg yàlla am naa yaakaar si moom ni moom saa amoo problème say waajur moom mosu ñëw woote ni bàyyi sal nangam nangam say grand frère respecté nga rek xam nga magam bi nekk Espagne gaynam la ak Ahmed rakam liggéey daal lañ ko xamee ak jaamu yàlla dem cant booy bi daaru mosu ko tardé màggal Tuuba moom waxaale wu ma ko na moto bu nekk si biir sax mi ngi naan ma barki démb rek rek mi naan ma am na moto bu ma gaara si biir maa ngi koy préparé pour màggal gi instant moto bi sax laa ko bëgg a tegal ma naan ko ren moom boo def ndànk doo ko fi jëlee ma dangay dugg comme ñëpp mu renaan ma dem yoonam quoi waaw xam daal ñàkk nañ daal bu ndaw xam nga vingt-huit ans instance yi moom la demee nii li nga xam ne moom parce que tamit barki démb xaw meloon dara mu mhm. jéem mhm. ñu mhm. nekk rek chaque fois rakk yi di dem nii comme ça ay dem yoo xam te ne ñun comprendre na ñoo tamit mënuñu maanaam duñ ko seetaan daal wax dëgg yàlla lépp lu ñu yoon laaj dañ ko def lépp lu yoon laaj moom dañ ci taxaw ba mu dem lii moom duñ ko bàyyee nii moom bu dee circonstance yi demee nii moom. ci yenn circonstance la demee. waaw xam nga marqué lañ la mën a nettali xam nga comme tey fekke woo ko. Mhm. mënoo ci wax lu mhm. bëri. Mhm. li ñuy xaar mooy autopsie bi génn lu mu wax ak li ki nga xam ne moo fekk affaire yi wax ñu xool ñu ñu ko quoi. ki fekkee li mu wax. bon xam nga ay dóor ko xeer fii boobu miir ñu tàddal cordon bi cordon bi dal ko fii si pot bi mu wàcc hmm. laay mi nga xam ne moo fekk affaire moom loolu la expliqué am hmm. ñun fekke wuñ ko ñu wax ndax hmm. fekk wuñ seen bi mais moom loolu la wax ñu looloo am léegi bu nekkee moom loolu lu am la non loolu moom luñ ko bàyyi pour tamit suñu gendarmerie nationale tegu ñu leen fi pour ñuy rey nit ñi dañu fi teg pour ñu aar ñu. ah ñoom autorité yi jot na ñëw ñëw. autorité yi non fii gisaguñ kenn non gisaguñ kenn.